asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki tubaa ca kanam nooru daare ni ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare di jiital ci nuyoo bu boobu eh, Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xamante ni mooy xalif général des Mourides di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te may ko ak wér naka noonu di ñaanal Serigne Abibou Mbacke mu Cheikh Mouhamadou Fadal ak sëriñ Abdou Lahad Abibou ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kanamu liggéey bi. kon leeral gi nga xamante ni moom lañuy def tey mi ngi jëm ci mois d'avril avril 2020 li nga xamante ni jot na fee dugg ci Touba ci kanam ci ay koppar ak li ci génn ak li des ci compte yi. bu dee ci zone nationale bi la nga xam ni mooy fii ci biir réew mii di Sénégal ka ca jiitu di Touba muy dëkk bu sell bi nga xamante ni fi lañu nekk li fi jot a dugg toll na ci 31 million 66 mille 263 francs CFA 31 millions 66 mille 263 mille 263 francs CFA bu dee ndakaaru ci njiital wala ci ci ci njiital sëñ Alaaji Ndaw ci kilifaam sëriñ sëñ sëriñ Baye sëriñ Bousso dugal nañ 3 millions 601 mille 300 francs bu dee li nga xamante ni moo jaar ci Tigo Cash bi ñu gën koo xam ci Free Money mi ngi toll ci 73 956 francs bu dee li nga xamante ni moo jaar ci Orange Money bi ñu gën koo xam ci cent dièse 144 dièse 621 dièse li fi dugg toll na ci 23 millions 531 mille 813 bu dee li nga xamante ni dafa jaar ci numéro orange money bi nga xam mooy 78 544 33 33 mi ngi toll ci 500 000 francs bu dee ci Mbàkke ci njiital soxna Adja joor gay ak sëriñ Mama Fall ak sëriñ Abdoulaye ak sëriñ Mor Silla dajale nañ ci weeru avril bi 837 000 francs bu dee ci Diourbel ci njiital soxna nday Njaay dugal nañ ci Touba ca kanam six cent soixante mille francs bu dee Kaolack ci njiital Serigne Moustapha Touré ak ñi mu ak ñi mu àndal liggéey bi yëpp ca Kaolack dugal nañ ci Touba ca kanam ci weeru avril quatre cent mille francs bu dee ca Louga ci njiital Serigne Moustapha basiiru Mbuub dugal nañ ci Touba ca kanam ci weeru avril 877 mille 800 francs CFA bu dee Kébémer ci njiital sëñ Gora Sill dugal nañ 480 mille francs bu dee daayira Babal Ayaadi bi nga xamante ni moo nekk Añaam dugal nañ 40 mille francs bu dee Ndar ci njiital sëriñ Rijal Seck ak Soxna Rama dugal nañ trois mille francs bu dee ba tey ca Mbour ci njiital Serigne Mor Sourang dugal nañ quatre cent mille francs bu dee ca Joal ci njiital Serigne Bassirou caw dugal nañ ci tubaa ca kanam ci weeru avril deux cent mille francs bu dee Goudiri ci njiital Serigne Dame Ba dugal nañ trois cent mille francs bu dee Ross Béthio ci njiital Serigne Alioune Ñing dugal nañ lu tolloog deux cent mille francs CFA bu dee jifeer ci njiital Serigne Ousmane Ndiaye mois de mars ak avril dugal nañ deux cent cinquante mille cinq cent francs CFA bu dee versement anonyme yi nga xam ni ay murit yu am pas-pas jàpp ci liggéeyu Touba ci kanam te bëgguñu ku fesal seenu tur dañu koy jaarale ci compte Touba Ca Kanam yi ñu koy wax versement anonyme mi ngi toll ci 1 million 686 mille 113 francs bu dee Vélingara ci njiital sëñ Mbacke Gueye dugal nañ ci weeru avril bi 75 mille francs bu dee Kolda ci njiital sëñ Moussa Sène dugal nañ ci tubaa ci Kanam 173 mille bu dee Fuuta ci njiital sëriñ Mouhamadou faadal Dia dugal nañ soixante quinze mille francs ci weeru avril ba tey bokk yi sanc baabe ci njiital sëriñ xaadim ñang dugal nañ quarante mille francs ci weeru avril bokki jawe ci njiital sëriñ taalakan dugal nañ soixante dix mille francs ci weeru avril bu dee fuuta oko jeere ci njiital sëñ ma sayer Gueye ñoom dugal nañ 31000 francs ci weeru avril tuubaatul ci taxawaayu soxna ummi Buso dugal nañ ci Touba ca kanam ci weeru avril lu tolloog 50000 francs Wuro Sogi ci taxawaayu soxna mun a Mbàkke dugal nañ lu tolloog 62000 francs ci Touba ca kanam bu dee Koungheul ci njiital sañ Yuusu Souran dugal nañ ci Touba ca kanam lu tolloog trois cent mille francs bu dee Daaru Salaam jogo ci taxawaayu Serigne Bassirou Cissé ak Soxna Gueye dugal nañ ci tubaa ci kanam cinquante mille ci weeru avril bu dee Daaru Musti ci njiital Soxna Muslim Mbàkke dugal nañ vingt trois mille ci weeru avril bu dee jaayante yi nga xamante ni ku mel ne Serigne Moustapha Mbàkke mu Serigne Massamba di xalifam ma sàmba andi na ko ci Touba ca kanam mu ànd ak taxawaayu association bu am solo bu ñuy woowee Touba Daaru Xuddoos li ñu fi dugal tollu na ci un million quarante cinq mille francs di leeral ni un million yooyu sëriñ Serigne ma Massamba Mbacke moo ko indi ci Touba ci kanam quarante cinq mille yi association bi ñuy woowee ànd taxawu Touba Daaru Xuddoos ñoo ko dugal. bu dee li nga xamante ni moom la ñuy wax extourne bancaire li nga xamante ni banques yi dañ koy dagg ci compte Touba kanam tañ ñu koy delloo waatal banque atlantique delloo si na ci lu tolloog neuf mille cent cinquante cinq francs kon bokk yi bu ñu xaymaa li nga xamante ni moo dugg ci compte Touba ca kanam ci weeru avril ci zone nationale bi mi ngi toll ci 67 millions 650 mille 900 francs CFA ñu baamtu ko li nga xamante ni tàbbi na ci gafag ak Touba kanam ci zone nationale bi ci weeru avril mu ngi tolloog 67 millions 650 mille francs 650 mille 900 francs CFA kon ba tey. li nga xamante ni facture la bu ñu jëndoon mu jëm ci wàllu feer jëmoon ci sànc bi ñuy wax Touba Njaareem ginnaaw bi ñu jëndee bagages yi ba noppi dañu caa defaraat ab remise bu cent mille francs kon di xam la ne cent mille francs yooyu dellu siwaat na ci gafag ak Touba ci kanam li nga xamante ni moo jëm ci wàllu leeral dëkk bi rawatina ci kër yi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bu sell bi di Touba ñu di ko wax éclairage domestique muy làmp yooyu nga xam ne indi woon nañ ko bokk yi di ñëw di ci barkeelu di ci joxe ñaari junni biñ ko da ko dajalee ci weeru avril mi ngi yamook neuf cent quarante mille francs bu dee ci zone Amérique États-Unis ci njiital Serigne Soy bu sekk ak bokki taalibe yi mu ko àndal yépp dajale nañ ci weeru avril lu tolloo 4 million quatre vingt mille trois cent francs bu ñu ñëwee ci zone Europe ñu tàmbalee ci Angleterre ci njiital sëñ Fallou Diop moom dajale na ci weer wii di weeru avril deux cent soixante-cinq mille francs Italie ci njiital coordination bi dajale nañ deux millions sept cent quarante cent soixante bu dee bisub jaayante bi nga xamante ni. amaloon nañ ko ci tubaa ci kanam ci njiital Baye Serigne géey muy jaayante yoo xam ne def nañ ko mu ngi tolloog 557 357 France ci njiital coordination bi dajale nañ ci weeru avril 1 million 54 mille 212 francs Suisse ci njiital sëñ Njaga Aaw dajale nañ lu tollook six cent zéro soixante seize francs CFA ci njiital Serigne Abdou Salam Faye dajale nañ lu tolloog quatre cent trente mille cent quinze francs CFA kon bokk yi bu ñu dajale li nga xamante ni moo jóge ci zone Europe tàbbi ci Touba ci kanam ci weeru avril mi ngi toll ci cinq millions six cent cinquante cinq mille 929 francs CFA zone Afrique Côte d'Ivoire ci njiital sëñ Mor Faasa dajale nañ 910 000 francs CFA Mali ci njiital sëñ Aline Waaj ak bokk yi mu ko àndal yëpp dajale nañ 321 000 francs Togo ci njiital sëñ Assane Maar dajale nañ 38 000 francs CFA. kon bu ñu xaymaa li nga xamante ni moo bàyyi ko ci Afrique ñëw ci compte tubaa ci kanam ci weeru avril mu ngi yamook un million deux cent mille francs CFA kon mbokk yi bu ñu boolee li nga xamante ni moo dugg ci compte Touba ci kanam ci weeru avril dale ci biir dëkk biir réew mii di Sénégal ak continent yi ni ñu ko limee bu ñu ko boolee lépp mi ngi toll ci soixante-dix-neuf millions six cent quatre vingt dix mille cent vingt-neuf francs CFA total encaissement ci weeru avril mi ngi tolloog soixante-dix dix millions six cent quatre vingt mille cent vingt-neuf francs CFA kon mbokk yi ñu fas yéene dikk ak yéen comme niñ leen ko waxee woon ci suñu njëlbeenu kàddu ci li nga xamante ni moo génne ci gafag ak ci kanam jëm ci li biir liggéey bi ci loolu taxawaay yi nga xamante ni Touba ci kanam mi ngi koy amal ci daaray alquraan yi muy sànc yi nga xamante ni tàmbali nañ ko ci daaray alquraan yi nga xamante ni moom lañ tànn ci atum 2020 li ci jot a duggagum mi ngi toll ci huit million six cent soixante-sept mille quatre cent francs CFA bu dee sànc daaru xadim muy poste bu poste de santé bu daaru xadim lafa jot a dugg mi ngi toll ci deux million trois cent soixante-dix mille huit cent deux francs fa bu dee poste de santé bu Touba Njaareem li nga xamante ni jot na faa dugg ci biir liggéey ba ci weeru avril mi ngi toll ci dix millions huit cent soixante sept mille quatre cent francs fa bu dee chantier bu université bii nga xamante ni moom la ñuy tabax fii ci biir Touba batiment ba nga xamante ni tubaa ci kanam jël na ko fa ci weeru avril dugal nañ fa lu tolloog onze million zéro quatre vingt quatorze trois cent francs bu dee ba tey li nga xamante ni dafa jëm ci wàllum ndox. muy adduction d'eau muy ndox mi nga xamante ni ñu ngi koy xëcc ci sancaan yi ak pompe forage yi nga xamante ni jotoon nañ koo jënd ci weer wi nga xamante ni moom lañ génn bi ñu ko xaymaa loole lépp mi ngi yamook 34 millions 817 mille francs CFA bu dee ba tey chantier Boberel ci weeru avril dugal nañ fa un million 793 000 francs CFA bu dee poste de santé bu Touba ci weeru avril dugal nañ fa 222 mille 900 francs CFA frais yi nga xamante ni dafa aju ci woto yi nga xamante ni ñooy yor liggéeyu Touba ci kanam yi muy pick yi ak camion yi ak citerne yi ak mboolem jumtuwaay yoo xamante ni day daw ci liggéeyub Touba ca kanam li fa jot a dugg ci ay ci gaz wàll ak ci lu jëm ci wàllu frais yoo xam dafa jëm ci dépannage loolee lépp biñ ko xaymaa mi ngi toll ci 3 millions 353 mille 510 francs CFA. bu dee li nga xamante ni moo dugg ci commission communication ci weeru avril mu ngi toll ci 5 millions. cinquante cinq mille francs CFA bu dee commission bi nga xamante ni ñoo yor lépp lu jëm ci wàllu reboisement ci Touba Kanam muy gàncax gi nga xamante ni Touba Ca Kanam dana ko faral eh, di ko def ci dëkk bi ngir taaral gi loolu bi ñu xoolee li fi jot a dugg ci weeru avril mu ngi toll ci quatre-vingt-dix mille francais CFA bu dee li nga xamante moo soxal. payoor yi jëm ci wàllu salaire gi salaire yi ak charge fixe yi maanaam lépp loo xam ne jëm na ci location chaise yi ak lu ci aju ci courant bi ak yu ci jëm loolee lépp bi ñu ko xaymaa ci weeru avril mi ngi toll ci 3 millions 647 mille 500 francs français CFA li nga xamante nii mooy budget bu fonctionnement bi bi ñu ko xaymaa ci weeru avril. mi ngi yamoog 758 mille francs CFA bu dee frais yi nga xamante ni banques yiy Touba ci kanam lëkkalool di fa jaarale ay kopparam nga xam ne dañ koy dagg ci compte tubaa ci kanam yi te ñu déggook ñoom ñu war koo delloosiwaat waaye ci mois avril bi li nga xamante ni dagg nañ ko te delloosiwaataguñ ko mi ngi tollook tolloog 34 mille 747 francs CFA mbokk yi. bu ñu xaymaa kon ci weeru avril li fi jot a génn ci konti Touba ca kanam jëm ci liggéey yi nga xamante ni tubaa ca kanam naal na ko wala mi ngi koy jëmmal ci dëkk bu sell bii di Touba bi ñu ko xaymaa ci weeru avril mi ngi toll ci million 82 millions 771 mille 609 francs CFA ñu baamtu ko mu ngi toll ci 82 millions 771 mille 609 francs CFA kon bokk yi ñu fàttali solde bi nga xamante ni moo fi nekkoon ci weeru mars ginnaaw bi ñu defee liggéey bu mel nii li desoon ci compte Touba ci kanam mi ngi tolloo woon ak 684 millions 218 mille 216 francs CFA loolu mooy li nga xamante ni moo desoon. compte Touba ca kanam ci mois de mars kon solde mois d'avril weeru avril li nga xamante ni moo fi des ci compte Touba ca kanam mi ngi tolloog 681 millions 144 mille 736 francs CFA ñu baamtu ko li fi des ci compte Touba ci kanam ci weeru avril ginnaaw bi ñu génnee yi jëm ci liggéey bi mi ngi tolloog 681 millions 144 mille 300 736 francs CFA kon ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare di jaajëfal ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp Mame si la secrétaire général bu Touba Ca Kanam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf